رضيت بالله ربا Sophie mm-hmm. ba du mbuuba dafa japp. Dede japp mi ñu ñëw ko ah wa bax na baax yow de dafa melni da ngay wajal génn waaw xadi sare ki ma ndeye leen jéeme ñu am conférence xadi sare sa xarit waaw lay ah. wajal ni Mom de wax deug Yalla koor gi sant nañ ci Yalla bu wër. Mm-hmm. ndax man Sénégal lima gëna neex moy koor dañ ko fonk lool Bo xolé télé dañuy changer sen programme Radio yi dañuy changer sen programme lima ma gën a neex nag mooy conférence yi semaine bu nekk conférence yi mhm, ah nii la jullit da ngay def yëfi jullit mhm, mhm. rawatina nag ci weeru koor ndax koor la mu laaj dafa bëri maan noppi sell yàlla nañ ko suñu borom defal waaw léegi kay moom macha waaw ah, buuba ñu ngi siyaar na nga def sant naa ko sant naa naka yitte sant yàlla bu wér waaw naka coono bi. sant rek. ma ne koor gi damay nelaw rek. yow da nga ragal. ah ragal ci boppam nga def. sa koor gi ci boppam dafa métti dafa war a gaaw a jeex. yow ragal. waaw koor gi de moom koor gi moom noonu la rek bu xawee kii moom da kan ngay tëdd rek dal. man koor gi damay naqari deret ba ku ma rek may bëgg a dara du bëgg mu yëw loolu dog leen dog jot na rek laay bëgg a dee. yàlla dafa dogal nag te ngeen man mayoon soxna ci farataak yàlla sunu su Muhammad sallallahu alayhi wa ñu ne ci wéru koor wax dëgg yalla sama rakk jé di gay xam nga ni kër ga ma nga fa ak euh dama né won sax nan bàyyi non waaye ñom ñoma ma forcé na ma dafa bax wéru koor bu jéké da ngay jëli sa soxna indi ko bu ko défé muy togg ndog ñuy waxtaan di kaf di reetaan mëna minenté nga xamni bu sey sey rek day fekk loolu amna ba paré ñaan nak yow malay ñaan bëgg la ab sama soxna si rek dama koy ab moom mën na fa baña korité ndax man xam nga tam na ko di korité fi veille bi rek ma takal ko ay bagaasam ci guddi gi mu ñew lool rek la bëggoon <coughs> wuyma ma hmm? xam nga li fi déssé nga xam na ko duma la ko bañal de da nga wara gor gor lu jema def fulla ak farata motali li nga fi yor moy deug ab na nga ma wax seyiwul na nga fexé ba sam sa kàddu dinaa waye yokal gor gor lu nga sant na la bu wer ndax ni ngeen ma comprendre boobu ba léegi sant naa leen ci gërëm naa leen ci. yaay mën naa jël kàddoo. waaw kay. <coughs> Euh, man problème mu abaleeg yooyu sax dama cee buggugul parce que yaakaar naa ne balaa ñuy wax loolu leb bor fay la tudd te bor bi dafay bëgg a amee tànk day bëgg a yàgg sa waay hmm? yow xanaa da nga fàtte paay jàkka ji.

li nga wax lépp dëgg la waaye sama loxo moo jotul sama ginnaaw. bon bi sa loxo jotul sa ginnaaw nag da ngaa wut loxo lay mottali sa ginnaaw gi mu jot ko mënutumaa gis paay koñ bi ndax bor bi nga leen amel dégg baax li ma la fayal bor bi. loolu rek laa la bëggoon xamal ñëw ma fi nag pour waxtaan dama ko doon fàttali bor bi rek yaay maa ngi ci biir damaa woote damaa sonn trop dama doon fàttali bor bi rek mais ñëw ma pour waxtaan la su fi man daan leen laa la bëgg a laaj kii naqari deretam wii mu naqari deret ak loo xam ne rek xalaat na ko moom du xalaat day jékki-jékki rek wax hmm, kii te moo dal yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa moom la suñu borom joxoon pouvoir yëpp waaye da daan baale di jëlale di jéggale moo mënul mel noonu da ci fer tam nañ ko bindee xanaa xamul loolu ah. Njaase li muy tàng deret yépp sama dëtt ko raw. waaye yow comprendre naa la ndax ànd nga ak dal fexe nga ma dëbb ko kon yow yaa ngi ci xeet bi génnoo ci. doo nekk weeru koor lan di baale di jéggalante tey waxtaan ci xel moom solo. moo tax nga wi nga wax. moo tax ñu jéggale ci. waaye Sophie yow tàng nga waaye nëbb nga ko te nag man nag li may laaj nag wax dëgg yàlla nag ama nag saraxuma nag kii sama soxna la weeru koor bi noonu ànd mu toggal ma ndogu begel ma tuuti mu mel rek man awma fi soxna sa yu ma ñew ñu bëgg ma ray nañ ma jox ki relika la len amel deug la waye am nak luma lu duggal nak nak, wax ji pour muy gëna leer nak di mel len ma. wala wa mom goor la. wa bàyyi lepp sama loxo man nako lijeenti da nga fas jom nak inshallah man dal ni nga mel. neex nama, man bu dal ah, daal yalla yàlla may yendok jam may ñu ndogok jam jërëjëf jërëjëf ramadan oblige sama gaay yi yéen may gis maa ngi nii sunu kër def sama robbu bu ndaw ak sama tokk musóor waaw waaw ramadan la ñuy wax Anita yaa ngi bég <laughs> wala may ay xaaral ma envoyé leen ko lii moom bu si naab yaa ko tal yaay booy yaay maa ngi ci sinap yi yaatal si nag déggoo li ma la wax njaase ñëw na fi. papi gis naa ko léegi ñoo daje ci porte bi. xawma papi ma tonton njéeme la ma la doon bañal yépp ngi nii toggal nga bañ fóotal nga bañ paaseel nga bañ te yépp liggéeyu jigéen la àbb na la nag te abal naa ko bi ngay togg ndogu ay tiital nga waaye xam nga ne loolu rek laa bëgg dem nag ah. waaye boo bëggee dem te mënoo togg nag. moo yaay may dem togg ba mu baax gër yi nekk fi ak omelette yi loolu c'est lekkable. kasara mat nit dina woor ba ngooñ jot nga koy jox ay hamburger ki omelette su ma bañul woon ñu xas la te xam ne buñ la xasee man la ñuy xas ndax doom ja ndey ja ku ñu ko wax nga mer sa ndey a baaxul. waaye man yow war ngaa xam ni man fi saw jom rek laa feese kenn du ma jam naa ni ma def diggante ndey ak doom soo demee si gil xool ma soo jógee marché xanaa war ngaa mën a dem marché. soo ñëwee ba taa jot ba nga dugg ca waañ ba woo ma téléphone fexe ba am crédit bu doy rek maa yow maag yow maag yow ci ruusi ba yàq. xelal nga ma way yaay yaay xam nga nandi te nga billahi loolu khalaatu mako won loolu kay dàq tegal fi loxo waay teguma ben loxo yow da nga nara ñak jom sa aduna wala yaay bu ko yàq ñëwal ñu sinab loolu wax nga fi lu neex bu sinab man na fi tok sinab ak yow déggal rek lima lay wax nit ku baax day am jom te jema yow naro am jom de bu ko yàq buguma li ay yaay bul mer ah li mom dafa neex def lu baax bu pare bu ko yàq ma ngi pare dem sama keur papi ah dem waañ defar ba mu baax tàñ ndogu <laughs> na ko ñëpp yëg